Nous gouverneur recevoir ñu fille pour CRD bi nga depuis foire bi commencé ba vraiment rassuré parce que xam nga mbir affaire beaucoup wax rek li priorité sécurité sécurité moy li ëpp solo dajale na service am jox na instructions wax sécurité ci prévention ci lepp lo xamné ni vraiment population bi dañ ko soxla ah té loolu tamit and nañ ko ak collectivité locale bi maire bi yebale na euh, conseil départemental bi et li ci ëpp solo moy tey jii Kaolack am occasion euh, wax euh, wax ndax Kaolack fi la lépp dépa démarré Kaolack tay so xolé autorité yi ba ci président de la république moy région bi nga xamné ci le ëpp lim visiter amna ko mako don jox néma xolal ci les 10 ans ñaata yoon la visité Kaolack visité ko ñëw Kaolack wala mu traversé ko dem parce que Kaolack ko traversé da nga fi taxaw kenn mënu ko traversé dem soo xoolee lim fi ñëw ñëwu ko fenn soo xoolee tamit Kaolack mooy deuxième port soo xoolee même autorité yépp wala population sénégalaise yépp ku jógee région par région da nga traversé Kaolack da nga fi jaar kon ab foire du fi du fi du fi guléet li ñu war a fexe kay mooy comme le gouverneur wax ñu wone gën ci naw Kaolack euh, wax suñ euh, fierté ba nga xamné ni nii képp ku fi ñëw da nga sawar ñëwaat fi da nga sawar euh tamit dëkk si fi sax ndax man gis naa ñu fi affecté sax ñu pare ñu dessiné danañ fi dëkk si et encore loo xam ne waxuma ko ci français journée bi nga xam ne nii le premier février mu dajeeg foire bi ñun ñëpp war a génn mu nekk affaire boo xam ne sera un exemple boo xam ne nii pour li nga xam ne moom lañ def ci Kaolack thème bi mooy marché CDAO presque enjeu bi enjeu bi nag liñ ko waxé xam nga Maroc dafa demandé won né day dugg ñun bokku nañ ci discussion yi biñ démé demee li ma leen wax c'est très clair si Maroc day dugg pour jël ay produits am duggal fi ça intéresse pas les Afri les Sénégalais mais su fekkee day dugg pour ñëw investir et je pense que lolu lañ wax né lolu lañ bëgg roi bi bi fi ñëwee lolu la leen wax il vous a demandé investir investissez ci dëkk bi lolu tax sen banques yi nekk sen lepp nekk fa et vraiment biñ fa démé

waaw am na fi jongante togg am na fi dana am concert dana am yëpp dana am surprise sax da ngeen gis incha allah dañ leen ko wax Kaolack dana dana dana yëngatu bu baax a baax li ñuy demande rek mooy collectivité locale yi accompagner accompagner population bi pour que euh, Kaolack euh, delluwaat fa mu nekkoon. Hmm?